boorom bi ñëw na dina fi rek day mbër gi jabra jakati kekegin cagi cagin rek borom peel bi ñëw na dina fi ray nday mbër gi jabra jakati kekegin cagi cagin rek bébé Elton ñëw na dina yi présenté na boppam waaye nag léegi li problème bi mooy peel bu ndaw la yoroon waaye léegi boole na ci peel bu mag fa la ñuy ibbeeg moom lu waral peel bu mag bi nga soogay nuyoo waaw ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi maa ngi sant sama ñaari waajur di sant sama sëriñ sëñ Ousseynou Mbacke mu sëñ Ateex di sant fii nga ma fekk nii saal bi waa saal bi waa ko su jim gars yi dañ maa bëgg xama sama benn grand abonnel ma fi neuf mois barke Serigne Saliou Mbacke pourtant tey laa fi ñëw rek mu abonnel ma neuf mois mi ngi ci biir grand bi grand bu baax man sénégalais ñoo ma bëgg moo tax ma nar moom grand bi rek moo nar a tax ma dóor fi nday mbër ba mu dee jël sama peel bu mag beeg bu ndaw bi wàqe ba mu xóot suul ndeyam mais maa ngi nuyu ñëpp di leen gërëm waaw waaw macha allah mhm. mu doon kàddu yoo xam ne ni am solo la Bébé Elton nekk ndaanaan bu mu fi bu ñu toogee ba ba léegi ku romb siyaar mbër ku romb ñëw taxaw ni ñuy wax ak moom ci ginnaaw ñëpp mi ngi fees dell coow li lan la wàcce sa bopp dund ambiance barke yonent bi waaw jox ñëpp cër jox ñëpp wóor ma parce que man maay Sénégal Sénégal boo yëkkatee sa loxo ni faalewuma kenn yëkkatil bi ci des ni kenn faalewu fii noo jàppee nit ñi noonu la lay jàppee bébé Elton a ngi nii parce que gars yi dañ koy consommer local. Mm-hmm. macha allah waaw ñëw na Elton ñëw na Elton ñëw na la la la la loolu dafa neex. barki Serigne Saliou Mbacké di wax gars yëpp nan ma xaar. Mm. waaw maa ngi ci liggéey bi di liggéey combat Modou Lo Siteu dama ciy bëre incha allah ci kàttanu yàlla maa ngi ci liggéey bi sama fans yi ñoo tax may liggéey. parce que kenn ku la bëgg jar na daw ba dee ngir ñi la bañ. ñëpp xam ne coach si Jim. waaw coach la boo xam ne ni ndaanan la te xamul caaxaan ci liggéey la ne sa diggante coach si jiim kon naka pare moom mu encadre di la préparer de l'élection wala. waaw waaw échange damaa ñëw jox ko lépp ni ko carrément échange ni bébé noonu. incha allah ci kàttanu yàlla gars yi nan xaar lu bees sax incha allah ci kàttanu yàlla dinaa ñëw bu may ñëwaat incha allah komba combat Modou Lo Siteu dinaa indi ar euh, miskil macha allah dinaa ñëw indi doole indi état te incha allah dinaa bëre dinaa xeex dinaa duma dinaa daan ci kàttanu yàlla. Uh-huh. su combat bi weesu. waaw ni nga ko entamé salaamaaleykum nga waaj yenn waaju gauche. waaw ko gauche yenn ne bébé Elton gauche droite bi mu yor. mun na fi rey mbër. dinaa loolu mooy suma objectif. man loolu laa gëm ci làmb mbër yi kenn dàquma cee bëre. mais kenn du gis lu yomb di def lu jafe. barki Serigne Touba loolu suma objectif la dinaa fi dóor mbër mu dee ma jël sama peel bu mag beeg bu ndaw bi wàq ba mu xóot 9 mètres ci suuf. Uh-huh. ma suul. te dem nga gis naa sax Balde dafa wàq ba mu xóot. taxaw ci biir sangu gàllaaj ah waa gis nga ñooñu yëpp ay eh, eh, dan may toppandoo. di wàqi waaw di wàqi amul yooyu loolu bébé Elton moo ko moom. Uh-huh. ku ko jël di nga xam ne yëfi bébé Elton la. Uh-huh. amul Jacob Balde amul patati amal patata ku ma ci jàpp dama lay suul sama peel bu ndaw beeg bu mag bi. Uh-huh. waaw ku jël avance bi instant yii. instant nii instant rek naa la wax adversaire. instant adversaire lan mooy wutal. non ñor na. mais ñi ngi wax ak moom waa jàmbaar man jox nan ma cinq avance ma téye. cinq avance cinq avance lan ma jox ma téye sama digganteeg Issa Pouye bu taxawee bu mu la bett sama digganteeg Cheikh Niang bu taxawee bu mu la bett sama digganteeg Mamaya bu taxawee bu mu la bett. Mamaya sama diggante waaw sama digganteeg zoo technique bu taxawee bu mu la bett. mais dégg naa sax sama waaw waaw sama digganteeg euh, euh, kii bébé Saloum bu taxawee tamit bu mu la bett. <laughs> barki Serigne Saliou Mbacké déggool dama ni sama diggante bébé Saloum bu taxee bu mu la bett waa jàmbaar cinq avance lan ma jox booy bu ndaw bi borom peel bu ndaw bi dañ ah. koo yónni yaa xam te man àdduna ñëpp ma bëgg mais est-ce que ñëpp amateur yëpp lenn rek la xaar mooy bébé Elton am komba war a tuus ay tuus ma la ñëpp di xaar di nga gis lu garaaw ah. di nga dégg borom peel bi ñëw na dina fi ray nday mbër gij jabra jàkka ci kii kii gij jagi-jagi rëng borom bi ñëw na dina fi rayi nday mbër gij jab rajaka ci ki ki gij jagi-jagi rëj Elton ñëw na dina fi suul nday mbër loolu mooy sama objectif dinaa fi jàpp mbër dóor ndeyam ba mu bëgg a ma suul ndeyam loolu laa gëm barki yonent bi clavier yi dañuy ñëw dar ko bu gars yi ni bébé Elton ñëw na dina fi rayi nday ma kala bi dina fe gis na man gëj jabra daka ci gëj gëj cagi cagi rat loolu ama loolu dafa fees loolu daa woo koŋ ni konkorom te man li ma jaaxal mooy instant yi géwalu géejawaay ñëpp ay xëccoo ku tuusal waaw ñëpp la bëgg a tuusal barke yonent bi ñëpp ma ci chalier aas nag sama tambour major aas aas aas borom bo wow kongu day def effet bébé Elton ñëw na lan la ñuy xar ci góor bu dëgër baa ngi nii wow kongu day def effet ki jagin xam nga loolu dafa garaaw as mooy sama tambour major jëwal yëpp maa ngi leen di woo topp ci ginnaawam ñu ñëw tuusal bébé Elton ko combat moo loo sita ma wàcce stade bi jàpp sama adversaire dóor ko ba muy bëgg a dee wàqe ba mu xool neuf mètres ci suuf ma suul ko loolu la sénégalais yi di xaar ci loolu la di xaar waaye keroog ñu amoon waxtaan bu am solo bu ñu waxtaan ci arène nationale gannaaw ba nga tëkkoon teg ma maya ne ko nañ ma jox sa avance ma duma la daan la nga ne ma nag Balla Gaye dinaa ko abal sama tuus loué ko ko su daanee du fay dara ba Balla Gaye mel na ni daa jël say uppercut ak sa xeex waaw waaw ne xam na ne maa ko abal peel bi gisoo peel bi ah. peel bu ndaw baa ngi këram ba léegi na ma ko indil nag soxla naa ndax damaa jëm ci bis ah. dama ko ko ni bu daanee mu delloo ma ko. Ah. na ma ko delloo ndànk félicitation Balla Gaye 2 macha allah. démb démb géejawaay ñëpp kontaan nan macha allah. barke yunt yi lii mooy wane ne Balla Gaye mooy làmb mooy mooy géejawaay. waaw macha allah lii lañ doon xaar ci moom ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di ko ñaanalaat bu amee combat yàlla na ko yàlla may ndam parce que mooy sunu mbër. mais la moo tax ñëwee stade non démb dama génnoon génn bu gàtt. mais xam nga ni suma xel ak suma xool yëpp a ngi foofu. si combat bi nga nekkoon wala. waaw non ah xam nga ni ku fóotal mba roccil bar. Uh-huh. dëgg neexul. Uh-huh. Balla Gaye bu aaye ku nekk day xool fu mu dugg. fu mu yaakaar ne bu fa duggee am Balla Gaye am ndam mu dem dugg fa. macha allah waaw parce que. Balla Gaye nu mu bëreeg ñëpp di wax ni que Tapha moo sut moo mun moo ëpp doole Balla Gaye cadre Tapha ak moom duma ko dànk. waaw Balla Gaye loolu la ñuy xaar moom. Eh, mbër la champion la macha allah ku bëgg làmb biir géej waaye moom moo tax. Mhm. kon ñu ngi koy ñaanal xama fi mu teg tànkam ni bu ko tegul lépp lum ñàkkoon ci làmb incha allah dina ko amaat ci kàttan. kon liggéey bi des na dafa war a gën a liggéey. non instant yii dégg naa for naa ci weewu béy xaw ma weewu nag. Ah. day delluwaat INSEP ci kàttanu yaa waaw. na dem parce que làmb léegi foofu la toll. boo daanee da ngay dem bu la daanee nga xaar. incha allah te moom xam na loolu. Mhm. incha allah mi ngi ci liggéey bi day dem. te man bientôt lee ma lee ma dem pare waajal sama combat États-Unis lay wax ne yow damay dem. ah damay sama combat bi dese quatre mois. laa ilaaha illallah barke yonent bi xam nga man doomu dëkk boobu laa. waaw te man waa waa waa Europe sax ñoo ma gën a bëgg. te incha allah bu ma fa ñëwee cëpp nga xam ne doomu dëkk boobu laa. sa mag mi. ba ba gars eh, ma. borom peel bi ñaw na dina fi rey nday mbër gij jabra jàkka ci gi gigin cegi jegin rëng mbëru États-Unis ñëw na dina fi rey nday mbër loolu la hamburger yi foofu nag beneen affaire la. non ah, foofu xam nga fii bu ma nekkee fii. Ah. bu may lekk hamburger 17 hamburger laa lekk mais foofu bu may lekk hamburger xam nga seen hamburger yi. ak fii seen hamburger yi bokkul. foofu 13 hamburger laay lekk suur. waaw fii 17 hamburger laay lekk daal di suur mais fee bu ma demee États-Unis 17 hamburger laay lekk. daal di suur man sa alimentation laa bëggoon nga wax ko gaañ. parce que su soo xëyee suba lay lekk. añ bi ak reer bi parce que. tey sax tey reer bi. tey reer bi may ga laa laa war a reeree. ñaata ñaata. waaw tey tey dama war a jënd spaghetti quatorze mille sept cent cinquante jënd pomme de terre baxal onze mille cinq cent pomme de terre frite onze mille cinq cent douze omelettes huit nenu baxal mayonnaise deux mille cinq cent ñaari butéelu ketchup. lii laay consommé tey kii bi nag brochette bi nag. non brochette bi damay laal ñaar. bàyyi ko muy réer ko feeñ ñaari brochette rek ñaari brochette waaw bàyyi muy réer ko feeñ fekkee tey cere moom a neex suba cere la cere laay reeree damay jënd douze kilos cere. douze kilos cere. douze kilos cere laay jënd jënd laalo cent franc. bombe ko cere ji. kon yaa koy bombal sa bopp. jënd suukar sa fukki dërëm jënd meew genn waa liibar lii laay consommé moo tax ma ëpp mbëri doole dinaa fi dóor nday mbër mu dee ma jël sama peel bu mag beeg bu ndaw bi wàq ba mu xóot neuf mètres ci suuf ma suul uh-huh. ku ne xam na ni man maay mbër mu sut ci làmb ji quatre mètres cinquante laay mesuré sama loxo bi loxo bi trois mètres quatre vingt quinze man namp neuf ans waxuma la neuf mois de neuf ans laa namp uh-huh. juddu deux mille douze sama lëngëru biir bi neuf mètres la xóot ci biir sama largeur biir bi quatre mètres quarante yaa may dégg sama xaru tabaski nag dama ko rey ba pare. fees ko yaa may dégg lakk ba dugal ko noonu ci biir bi ñoox bàyyi machine bi def liggéeyam dinaa fi dóor nday mbër mu dee ma jël sama peel bu ndaw bi suul ndeyam loolu loolu biti la fa bokkuñu borom peel bu ndaw bi ngay waxal bokkuñu waaw parce que man 4 mètre cinquante la uh-huh. waa sama loxo bi 3 mètre quatre vingt quinze waaw sama lëngëru biir bi 9 mètre la xóot ci biir sama largeur biir bi 4 mètres 40 man nàmp 9 ans waxuma la 9 mois de 9 ans juddu 2012 instant yi 2024 bi laay am samay 13 ans mbër yi dama leen a ëpp doole. loolu suma objectif la dinaa fi dóor mbër mu dee. waaw. waaw. ma gëm sama bopp rek. adduna bu la kenn gëmul gëmal sa bopp. dama gëm sama bopp. lépp lu ma am ci làmb du sens mérite la. dama gëm sama bopp. tàmbali mu metti loolu ñu naan du mbër ma nekk xiiboon koccal barki yàlla yow matoon nga ma quatre xaw ma cinq yow matoon nga ma cinq. mais alimentation bi nga tàmbali ko may góorgóorlu. di jugo ka daanu di dem saal di dem géej di lekk ba suur naan ba màndi di teel a tëdd nekk ci li ma war a nekk bind sama ginnaaw sama fu te xam ne boo dëgmalee yoon. bu fekkee ku wax ak yow nga tontu ko doo yegg fa nga jëm ma gëm sama bopp ba yegg si fii tey gars na ni nangul nit ñi nangu dafa am solo man damaa jaar fu métti yaa may dégg dégg lu ne gars yi na nangul nit nangu dafa am solo wax sa mbaax waaye wàññiwul sa mbaax dara nga nangul nit ki terewul nga doon li nga doon gars yi na ni nangul nit ñi nangu dafa am solo man dama jaar fu métti voilà ku bëgg a mel ni man man nag du ma may kenn tur du may kenn buzz ku bëgg bës nga lijjantil ko sa bopp. Mm-hmm. waaw man damaa jaar fu métti rey ba Sénégal yëpp xam ma kon tey jii amaana du ma wax luñ may xeebe wala may def luñ may xeebe mais gars yi nañu nangul nit ñi. Mm-hmm. waaw loolu dafa am solo. sa diggante ak mbëru géejawaay waaw aw ma cee kenn xaar ma yàlla. mais ku ma ci nangulul nga jël avance bi ma suul sa nday ci stade bi ragalu ma nday lool. looy wax. sama digganteeg mbëru géejawaayu ndaw yi ku ci nangalul bébé Elton jëlal avance am mu suul sa nday ci stade bi boo ragalul lool ragaluma lool. non bébé Elton nag attention yow daw bëri mbëru géejawaay ndax géejawaay nga dëkk. mais ku ma drapeau drapeau géejawaay nga représenté. mais ku nangulul drapeau géejawaay laay représenté mais ku ma nangulul laa. Uh-huh. fi dama jaar fu metti uh-huh. ku ma na ki may waxal xam na boppam du ma tudd turam. bu nangu nangulul li yàlla may bébé Elton na jël avance bi ma suul ndeyam ci stade bi. te may waxal xam na boppam ah waaw te may waxal xam na boppam du ma tudd turam du ma may kenn coow mais ku nangulul li yàlla may bébé Elton jëlal avance bi boo ragalul loolu ragaluma loolu ma ray la ci biir stade bi suul la man gëm-gëm boobu laa am ah? man damaa gëm sama bopp li jënti sama carrière ñafe sama carrière ba yeg si fii kenn du ko yàqal fii titre foncier lan fi am ma am fi titre foncier waaw fii Balla Gaye mooy sunu mbër mooy sunu tête de file nin ko nangulee noonu la ñu gars yi war a nangulee gars yi nekk si suuf mais gars yi dañuy siisu mbër yu ndaw yi dañuy siisu ku siisu ci bébé Elton ni ko yàlla def jëlal avance mu rey la ci biir stade bi dawuma loolu. sa digg ak Modou Lo nga ne ku la rus ta jàppale doo ko rus a sant. ah le roi des arènes. mooy sam le mooy roi des arènes nu arène bi Modou Lo ne. mooy roi des arènes arène bi. Ah, non damani ni benn roi moo fi am muy Modou Lo loolu ñëpp xam nañ ko. sa doomu ndey. sama doomu ndey Modou Lo ku ma rësut a jàppale rusuma ànd ak yow man dëgg laay ànd ñëpp Modou dafa def geste bu rafet maam kombaa combat mu yëkkati un million may ma. kon loolu dafa nice raw euh, ragal ragal féete day xañ a wërsëg ci Modou Lo laa far. barke Seydina Mohamed moo nii nii moo tax waa jàmbaar jox ma cinq avance xoolal loolu ku la defal loolu suma ànd ak moom Modou Lo laa faral géejoowaay laa dëkk Balla Gaye mooy sunu mbër mais Modou mooy suma idole leer na voilà si empereur bi Balla Gaye mooy empereur loo loo moom moo mooy mooy mbëru géejawaay Balla Gaye mooy mbëru géejawaay mais Modou Lo mooy sama idole loolu ku ne am na ci droit. ku ci xul moo ma tooñ. te du géej waa géejawaay mbër yu ndaw yi nekk fii géejawaay buñ bëggee jàmm nan ma may jàmm ku ma ci mayul jàmm doo am jàmm. <laughs> am ñu waaw dafa am ñuy siisu ci li yàlla may Bébé Elton. mais est-ce nekkul ñoom sa diggante ak Modou wala neexul. man kenn du ma utal ku may àndal yàlla mooy xool ñaari nit. yàlla boole leen te yàlla moo ma booleeg waaw ku ciy siisu nag jëlal avance bi ma suul la nday ci biir stade bi daw ma nday loolu xanaa looloo gën a dee. mais nag mais nag Mbaye Babacar mel na ne nag Bébé Elton fu mu ne nii du bëgg revanche bi Balla Gaye ak Modou empereur beeg roi bi bëgg ko. en tout cas daal man man li may wax wax naa Balla Gaye mooy sunu mbër biir géejawaay ñun Balla Gaye la ñu am mais Modou mooy sama idole loolu sañ naa koo wax fu ne waaw mais mbër yu ndaw yi nekk biir géejawaay ñi nangulul bébé Elton nañ jël nday avance bi ragaluma nday loolu. mais mën nañ xaar bébé Elton sa combat bii di ñëw nga ànd ak Modou Lo waaj ko ci entraînement. man man maa ngi ànd ak Modou di entraîné ah maa ngi ànd ak Modou Lo di entraîné. yenn saa day toog ba ci yàgg jël téléphone am woo ma allo bébé Elton foo ne ma ne ko maa ngi fi mu ne ma fekk ma Lac Rose ma ñëw ànd ak moom entraînement daw ma loolu man kenn du ma utal ku may àndal sama dépasse kër man maa koy joxe kenn joxelu ma dépasse kon kenn du ma utal ku may àndal. ah waaw kon kon Mbaye Babacar mën nañ xaar combat bi ba Elton bii ñëw mu ñëwee yaa oustaz bañ a takk gàllaaj non damay takk gàllaaj nag parce que loolu moom loolu la jig loolu la roi des arènes la jig sama xarit bi moo miir kenn du oh, moom doomu yaay bébé Elton kooku moo ma def ni moo ko def uh-huh. waaw kooku moo ma def li tax ma ko lo li ma mën loo defal yow soo ma ko defaloon ma def la ngay sama baay xanaa looloo gën a dee <laughs> barki yonent bi li ma mën loo defal soo ma ko defaloon ma def la ngay sama baay loolu la ma defal dama xama boole maag waa jàmbaar ñu jox ma cinq avance xoolal loolu ku tuuti xool mënu ko kër ga ceeb ba di waaw léegi kër ga dépasse cinq mille laa doon joxe mais léegi dix mille laay joxe lépp ci barke Modou Lo roi des arènes waaw ku rus ta defal lu baax nag yaa mu laalaa yaa xayta mu laalaa rusuma laa wax lu baax àdduna yàllaa moom ku xeebul sa noos kenn dàqu noos waaw man ci ginnaaw Modou Lo laa faral waaw borom na dina fi rey ndey mbër gij dabra jàkka ci ki ki kit cagi-cagit rëy Elton ñëw na dina fi ray nday mbër gin tabra jàkka ci géej géej cagi jagi rën loo ñëw na dina fi ray nday mbër yaa mbokk yi loolu la ñu ubbee woon loolu la ñuy tëjee ah. ndaxte bébé Elton macha allah waxtaan ak moom no stress la santal ba mu neex la waaw maa ngi sant maa ngi sant waa Tivaouane Pël sant waa bu baax waa Tivaouane Pël di sant Basirou Ka bu baax di sant Mouha Ndiaye di sant Ibnou Dramé waaw di sant grand Laman maa ngi koy sant bu baax di sant waa site ba ñoom Babacar Diallo Boulon Mbaytin ah Ndiak Ndioñ xam mbake Mbacke ñoom ñëpp maa leen di sant di sant waa Gunaas gi ma dëkk. waaw Modou Sow mi ngi fi. waaw maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm di sant jaaji ay sant bu baax di sant waa pàkk ba ku ci mel ni Zil Baba Jibi xam Moussa Tooni maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm sama xarit bi ku ci mel ni Galas ak Lama maa ngi koy sant bu baax di leen gërëm di sant waa Njagateer di sant Ala di sant waa Café ko ku ci mel ni Aliou Ngom maa ngi sant waa Gàddaay fii di sant waa waa waa waa fii Massé Xelkom ku ci mel ni Youssou Mar Pro Lamine Varan sama xarit xam nga euh, sama téyer maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm di sant waa salle bi ku ci mel ni sama coach waa maa ngi publicité yi parce que dégg naa léegi bi Elton nit ki da ngay am sa place war ko inauguré da am sa place boo xam ne bëgg nga mu siiw bébé Elton ñëw fa ànd fa ak orchestre bi gaañee xam nga mu ñëw publicité la kii géré publicité yi ak fan la ñuy jaar sama benn xarit Lamine Franck mooy géré loolu yëpp képp ku bëgg publicité wala nga bëgg scénario wala nga bëgg vidéo mhm. boo wooyee Lamine Vara wala inauguration bëgg bébé Elton ñëw ci waaw ku ne xam na ne bu sekkee job ah, ah, ah, kiyam bi man ma oh, maa ko defal publicité waaw waaw lancé coow lu bëri képp ku bëgg ubbi place wala ngay def publicité boo wooyee Lamine Vara wala nga jël sama numéro woo ma 77 098 04 58 boo ñëwee ñu defal la ci prix bu xéewal ñu publicité la réew mi ñëpp borom bu ndaw bi la ñu topp borom bi ñëw na dina fi ray nday mbër gij jabraakakén cagi cagin ral bébé Elton ñëw na dina fi ray mbër <laughs> El la la la la la borom pees na dina ko rey day ba gi taw rajat tak cek cek cek cek wér waaw